ñu ngi leen nii nuyu yéen ñi faral di ñu seetaan ci Leral TV eh, di leen jaajëfal bu baax a baax après eh, fi nga xamante ne moom mooy Gambie eh, ñëw nañu seleti yi jànq ñi nga xamante ni ñoom ñooy manifestant yi fa taxaw bloqué bi mais au delà de loolu gannaaw bi ñuy rombee seleti yi ñëw fi nga xamante ne moom mooy Diouloulou allant vers Kafountine on a trouvé des jeunes yi nga xamante ne dañ doon manifester contre l'arrestation de Ousmane Sonko ki exige à ce que ñu libérer ki nga xamante ne moom mooy seen leader Ousmane Sonko nag comme ni ngeen ko jisee noonu

Diouloulou ñu jox leen kaddu ñu wax li nga xamante ni moom la ñuy dund foofa ca diggante Diouloulou ak euh, fi nga xamante ni moom mooy Kafountine mais euh, comme ni ñu koy waxee rek euh, fii la situation est tendue les les voies sont impraticables il y a des forces de l'ordre de l'autre côté mais quand même interagir ñu maintenant armée bi moom mooy interagir jéem a dindi barrière nga xamante ni jeunes yi teg nañ ko ci kaw tali bi en attendant on va essayer de voir la réaction de ces chauffeurs yi nga xamante ni jëlee lañ fa ay yàqu mais mënuñu as mënuñu àgg ça fait deux heures ñu ci yoon bi ñu ñuy baare di baare waat malheureusement démb binteer ñoo ñëw ci guddi gi jàppale ñu sonn ci bagage yi àndale bant yeeg yëpp dimbali ñu ba fii ñu ñu taxaw am ñu des ci ginnaaw ñoom lañ jëli ñoom la ñuy xaar fii nag pour ñëw yóbbu ñu mën a jàll. deux jours ñu ngi ci àll bi amul sangu amul def dara tëdd rek toog.

boo àggee doo xam doo xam bu baaxee da ngay am chance bu yàqoo nga perte mais kooku militaire ñoo fi dara rek gendarmerie ñoom amuñoo ñoom dara moo na trop métti bi moom foo ko takk weesu na ko bàyyi comme rek démb fii nii bàyyi vingt une heure lañ départ fee bàyyi guddi gi gars yi daj lu ne ñun emprunté yi ñoo mujj bàyyi waa ci bàyyi si kaw garab yi moom garab yi toll na nu ne ñu gang lañ nag moo loolu mais xam nga mbooloo moom lu mu teg mbooloo mën na koo dindi yaa mu nga a xam gars yi di di jàll mais métti na trop oto yi ba dañoo yàq seen i moolo oto bi gars yi dañoo toj verre bi gisoo parabrise bi oto suñu oto boole noonu la rédiviseur bi gars yi dañ kaa toj ak oto yoo xamante ne dañoo jaal noonu la quoi du woon couvent bi rek des na oto yu bëri yoo xam ne dañoo jaal oto yi jëm Dakar yi ñoom it am na ñoom bëri na leen a yàqale mais xam nga guddi tamit ki lay gaañ doo ko gis ñun ñoo ne woon si kanam bàyyi safoor yi ci oto yi mais gars yi mooy loolu safoor yi bëri gars yi leen a xaañ ay xeer rek ay mangoog mooy loolu noonu oto yi bëri fii dañoo taq rek ak ay doomu mango xam nga doomu mango yu nëb yooyu noonu gars yi mu ñuy xeer ñoom la ñuy xaañ yàqal nañ ñu bari daal métti na métti na daal mais ñoo ngi ñaan nag Baye lépp moo loo daal mujj si jàmm ak salaam ñoo ngi bëgg a dem nii mënuñoo dem gisoo fii dañ ñu téye loolu noonu depuis dem ba tey Ziguinchor la jëm ñii Dakar ñii Ziguinchor moo loolu mais ñoo ngi nii mënuñoo dem mënuñoo dikk métti na trop vraiment métti na trop. moom démb sama réviseur la gars yi toj sama réviseur waaw gars yi ñoo ko toj parce que gars yi ñoo nax dañoo ñëw a wàcc avant ñuy wàcc fekk booy góor ñay xeer heureusement yàlla mën ko tural mais ko yëpp la gars yi doon yàq yàlla moo doon dimbali mais sama veeri côté beeg lépp te champs yi maa ngi yëpp valeur boo xamante ni nii ay millions la barki dem ba tey mënoo fexe ba jëm si ngeen sor gi doog ngeen si ngeen sor gi kese barki dem ba tey mënoo fexe ba yëg fa ngeen doo sang doo kii da ngay tilim xool ni mel si ay chauffeur ndaw la noonu nangul bëgg a liggéey rek moo nu sonal mais chaque ñu tuxu nu naa nañu jël alalu jàmbur bëgg a liggéey rek moo nu sonal mais du leneen mais tamit lii day dem benn sens da ngay siisu quoi barki sëñ Bamba lii dafa ñaaw góor yàlla bàyyi sa dëkk yaa ngi jógee ba Kajoor ñëw ba fii ngir daa dans sa doole ñu bëgg laa teg yenn fi nay amul sens quoi. ñun moom jàpp nañ ni ay Sonko ay Macky Sall ñun ñor ñu ñun ñoo ñor suñu bopp ñoo ñor ñun gëmuñu leen suñu bopp lañ gëm parce que ñun ñoo ñu yëkkati mooy lan liggéey ñàkk jariñu tere suñuy waajur lu moon tax a jóg du leneen ay jeune lañu ndaw yi gëm suñu bopp moo ko waral bu neexoon ñu dem defi leneen parce que suñu moom dañoo ko fiy def mais ñun tuxuñu naanuñu sàcc ñu ñu alalu jàmbur lépp rek it moo sonal mais du leneen parce que sëñ Bamba am ne dafa ñaaw nag nekk tamit boo bëggee jógee pour pour pour pour pour liggéey ñu bëgg laa galañ bu yàggee day moo loolu boo amul xool dëgg da ngay siisu mi tey ñoo dimbali mais bu dul woon loolu kon du ñëw mais tamit yéeme na trop daal parce que guddi la ñu jël te guddi mënoo gis kenn booy ci biir ñax mi lañuy dugg des dóor ay ay xeer ay 22 heures 23 heures fii ñu ngi egg si 22 heures heure du comme 100 kilomètres ngay daw mënoo dem mënoo dikk maintenant